eh vraiment. yéen ngeen war a jàppale seen xarit jàppale woo la ko daa indi diim. ah c' est lépp loo xam ne maa ngi. Masada var. kii nii gàcce weesuwul li nga xam ne mooy ce qu'il doit faire pour mën a man laxaat xam naa ni dina mën a téye soxna waaw parce que Baye Fall la yi yu baax yi góor wala am yëpp am na ko mooy jullite na baax na am na yërmande xol bi set na. donc man xam naa ne dina mën a téye soxnaam donc bu ma demee bay conseiller soxnaam la lay conseiller ah parce que mu mu mu wóolu jëkkëram parce que base diggante mooy mooy confiance en fait na am confiance ci borom këram bu mu déglu kenn waa gumba tëxlu jël borom këram def ko xarit def ko àndoo def ko lépp bu boobaa rek incha allah ak man laxaat mi ma xam non jàmm rek la ñuy am vraiment jàmm rek nañu am incha allah. gis bi da ngay wane ni c'est une boo xam ne ñu bëri ay bagages. lan wala jabar a gën a neexal affaire yi quoi. <laughs> ki ma gis ki ma gis. ah, ah ki ma gis de. dara ah. <laughs> waaw. na la ko avant wala yaa xam naa ko avant waxtaan nañ avant.